tay nak dañu ñëwoon fii ci district de santé bu hôpital Guédiawaye de Rufisque pour remettre en don boo xam ne ci wàllu maternité ba ci pédiatrie pour yombal liggéeyu personnel bi fi nekk ak population bi surtout ñu ngi ko xaymaa nag ci euh, conteneur bi mu ngi nekk dollars soit 300 millions de francs CFA ñëwuñu nak rek tay fi ci district fi lañu ñu commencé mais dinañ dem Youssou Mbargane dinañ dem poste de santé bu HLM dinañ dem Guy Mouride dinañ dem Diorga inshallah et ñu ngi ñaan yalla ci ndimbalu suñu borom ñu mën ko gëna tassaré Rufisque et même partout au Sénégal. Euh, bi ñu dajalee conteneur bi nak aux États-Unis yomboon na bi ñu ñëwee nag fii si Sénégal ñëw ba ci douane bi exonération bi xawon na yéex. génn ba mu gi dañoo jël de fonds propres fayal suñu bopp alhamdulilah bi ñu gisantee nag ak préfet de Rufisque moom logistique bi nga xam ne lépp moo waroon ci déplacement entrepôt ba ci poste de santé yi moom teg na ci loxo jàppaleñ ci bu baax a baax lii mooy euh, du première sax ndax lii biñ ko commencé yàgg na mais tollul woon ci dayo bii ndax dañ daan boole suñuy zakat di ko génne di ko yóbbu ci hôpital yu Sumbargaan xale yu ñu sànni ñu leen di jëndal ay yére di leen defal ay couche di di ko dajale di ko jox ñu ne pourquoi pas jël dajale loo xam ne lu consistant loo xam ne population bi dina ñëpp dinañ ci gis seen bopp ñu indi ko donc euh, loolu la ñu def te fas yéenew ñu yem fii suñu nag euh, final goal li nga xam ne moom mooy li nga xam ne lu mag lu ñu bëgg def à Rufisque mooy samp fi suñu son euh, suñu maternité boo xam ne ñun ñoo koy tabaxal suñu bopp ñun ñoo koy équipel suñu bopp ñun ñooy train personnel bi nga xam ne ñoo ci war a nekk. jëfinukaay yi dina yomb ci askan bi dina am dina nekk loo xam ne du ñu war a fay lépp lu ñu fi indi dañu bëgg population bi yëpp am ci accès gratuitement tamit gis naa ne dina yombal aussi personnel de santé bi liñ doon xaar. patient bi di daw ci biti di dem di uti ji ñoom ñu am ko fi bàyyiwu ñu dara ba ci seringue ba te lépp luy anesthésie lépp bàyyiwu ñu dara